dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyando yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu réew mi di Sénégal fan yi nga xam ne moom la ñu génn réew mi yëngu woon na loola ci lu jëm ci mbiri Ousmane Sonko ak Adji mi nga xam ne moo ko tuumal lu jëm ci wàllum viol bëri na ñoo xam ne tegoon nañu leen loxo làq leen jant bi jamono ji nag mën nañoo wax ne yaakaar juddu na ndax réew mi quotidien nee na Guy Marius Sagna di Assane Diouf di Clédor Sène ak ñu bëri ñoo xam ne Pastef la ñu bokk ni ki démb daat nañ leen di libéré bàyyi leen seen kër te Birame Souleye Diop ak Abbas Fall yàggatul ñu bàyyi leen maître Moussa Moussa Sarr mi xam ne mooy avocat Guy Marius Sagna nee na kontaan na waaye nag amul benn infraction boo xam ne Guy Marius Sagna def na ko ba ñu waroon jël di ko làq jant bi te njiitu mi di président Macky Sall il faut nag mu respecter xam ne mooy liberté d'expression ak liberté de manifestation yéen a kaay gi du a nee na nooya nooy gi en mode fast track gars yi ñoo ngi nooyal mbir mi yéen a kaay gi de ak enquête ak l'observateur ne a élection locale yi yokkal maire ak ñi nga xam ne ñooy conseil municipaux yi seen mandat yi ndax élection locale yi dañu ko jàppoon ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars atum 2021 kon date boobee mënuñu ko saa def moo tax njiitu réew mi ni ki daat nay adopté li nga xam ne mooy ab projet de boo xam ne maanaam moo koy dàq yéen a kaay gi di Sud Quotidien nee na commission bi nga xam ne moom lañ dénk lépp loo xam ne jëm na ci wàllum politique ci dialogue national bi ni ki démb dajee nañ ci seen biir doon waxtaan ci lu jëm ci àpp boo xam ne danañu ko mën a jàpp ngir amal élection yi waaye nag ak déggoo mujjuta am ci seen biir ndax ñi nga xam na ne ñooy opposition bi ñoom li ñu bëgg mooy élection locale yi ñu amal ko ci atum 2021 ñi nga xam ne nag ñooy majorité bi nee nañu ñoom loolee munta nekk atum 2022 la ñuy organiser élection yi yéen a kaay gi nee na en tout cas li nga xam ne ñooy assemblée nationale su ko defee ñu daal xaajale gars yi yéen a gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Benoît Samb membre fondateur bu APR moom nag wax na li ko naqare ci Madiambal Diagne ndax Madiambal Diagne dafa def benn chronique wax na xam ne moo amoon loolaa yi la loolee moo naqari bu nu waa sàmm bu APR loola nee na jamono ji sax ma jamal jaaña maanaam moom xaymawul wala nattul njuumteeka musibaaka tooxi doona yi nga xam ne teg na ko réewum Sénégal yéen a kaay gi du source a nee na lu toll ci fukk ak juróom benn ci ay oto huit huit yoo xamante ni gis nañu ko waa PDS yore ko yéen a kaay gi xëy na sampablaaj nee na oto yooyu nag su dee Karim Wade moo ko mooma est-ce que état bu Sénégal suñu koo teg loxo ndax lu toll ci cent trente-huit milliards kon nag bu ñu fi gisee yoo xamante ne yu bees tàq la ci fukk ak juróom benn est-ce que état munu koo teg loxo maître Moussa Sarr di ab avocat daal en oto yooyee su ci turu Karim Wade la nekk état bu Sénégal koo teg loxo waaye nag bu dee oto yi daal maanaam ci turu PDS la oto yooyee nekk état bu du ko mën a teg loxo yéen a kaay gi di Walf Fadjri ñu fekk fan ak Farba Senghor nee na ki nga xam ne mooy Karim Wade ay mbiram jeex na ci lu jëm ci wàllum politique a a Macky Sall ba atum 2035 yéen a kaay gi de la Tribune nee na parti bii nga xam ne mooy parti réew mi en tout cas ñi nga xam ne ñoo say tekk seen ndombal tànk di démissionné bëri na loola yéen a kaay gi de réew mi quotidien nee na ñi nga xam ne ay nappkat lañ di faatu ci biir géej gi bëri nañ lool bu ñu sukkandikoo ci Adama Faye mi nga xam ne mooy directeur adjoint de la protection nee na atum 2021 bi lu toll si ñetti ci ay weer lu si ñeen fukk ak ñett ci ay nappkat yoo xam ne faatu nañu ci géej gi yéen a kaay ci wàllum artisanat njiitu réew mi di président Macky Sall nee dina taxawala projet spécial boo xam ne pour ndaw ñi la jamono ji président Macky Sall ma ngi diw bër xale yi yéen a kaay gi di réew mi ko di cee les jeunes de l'économie xëy na wax ci hôtel bii nga xam ne mooy King fat Palace ak jafe yi nga xam ne moom la hôtel bi lambol ndax ay client na leen rey licenciement yoo xam ne jéggi na dayoo journal bi nee na bëri na ay chambre yoo xam ne kenn ko fa bu ñu sukkandikoo nag ci Père Mbow mi nga xam ne mooy directeur bu King fat Palace nee na daal temps normal lu toll si juróom-ñaari téeméer ay client daanañu ko am waaye nag jamono ji jamono ji tembe ci hôtel King Fahd Palace toll ci ñaar fukk ay clients rek la ñu am bu njëkk doon nañu am lu toll ci 700 clients moom Pierre Mbaw daan nay wax ne ñu bëri jamono ji licencié nañ leen yéen kaay gi des te xëy duñu xibaar naan ñu club bii de Real Madrid te ñoo ngi cay jafe-jafe waaye nag soo muy tuulee daal maanaam Cristiano Ronaldo a ki nga xam ne mooy Gareth Bale la ñoom boo muy tuulee danañu delluwaat ci boobale club ndax ñoom ñaan ñëpp maanaam bëgg nañu ko